tey ci suba li ñu gis bi ñuy wër santé yi président conseil départemental di def ñun dañoo yéemu té li ñu yéem du dara lu firné firnde euh, yéwénu président ak euh, engagement bi muy wone ci école man dama jàpp ne sax xëy dama xamul kan mo doon arbitre ci compétence transférée mais man mi yoré éducation fi ci Tëngéen man japp na né président il ne vit et n'agit que pour l'éducation te pourtant boo demee santé loolu lañ lay wax nga dem beneen secteur tam loolu lay wax kon ñun dañuy sant parce que dugg nañ ci école yi gis nañ classe yi ñu waroon defaraat gis nañ classe yi nga xam récession, réception nañ ko pare am na yoo xam dañu jox ay délai ñii nañu trois semaines donc fii ak Noël yi jaaxle gi ñu ci élèves yu bari yi ñu am yi ñuy ndax ndaxte dañu am ay résultats yu baax jaxlé gogou président du conseil départemental téggal nañu ko. donc dama wax kat yi ñu dellu ci classe yi parce que bu ñu amoon partenaire bu mel nii. kon duñ waxati dara mais mi ngi def kem kattanam te chaque fois fu ñu dugg nit ñi dañ ci produire di wax seen soxla parce que dañ leen wax dañ ah, mi ngi ñëw de booy boo ngeen wax bala dem mais bu fekkente ni fañ ñu dugg ñaar moo ko fi indi woon le plus souvent ak yeneen ñaar wala yeneen ñett yu nit ñi te bu dee koy dig ci saa si mu taxaw woote téléphoné wax ak ki ko war a def donc loolu man daf maa yéem en tant que d'académie moo tax ma koy sant bu baax di xamal vraiment di ko wax ca kaw ñëpp di dégg du ma ne sama problème yëpp rek leneen de mais jàpp naa ne la ca amoon solo nii mu taxawee bu dakkut man duma amat lu may wax en tant que inspecteur d'académie